te nee naa la Sonko dana mos jomaay mos maa bu ma maa ngay xool ñeneen ña nag bëgguma dugg ci yoo xam ne nanga mag du ma sax mos keneen mos Sonko ci boppam la fi yàlla di teg mu xool nu mu ko neexee mu koy doxalee noonu insha allahu rabbi kon patriote yi jógee guñ fi patriote yi jógee guñ fi bi nga naan ma dañuy gouverner booba yaa ngi naan ma sëñ bi baa ragaloo vaar yaa ngi koy fàttali bien sûr je me moo tax man Sénégal tamit du ma fëgg nag wax naa leen ko sama dënn du ma ndamu waaye yàlla xam ne ne ngeen jëfit daam ku ma woowee Amérique daal ne ma sëñ bi nag nga baal ma nii la ma ko waxee amoo looy prouver ma ne ko ci lan mu ne ma looy wax ma ne ko dëgg la de mu ne ma toogal nga ñàkk procès bi rek ñu dem ñi yàlla may xel ak ñi yàlla mayu dégg ñëpp dégg nañu ma ne ko ah yow de jigéen nga waaye wax nga waxi mag mu ne ma dinaa la woowaat keroog laa ko ci dégg nga xam ne ko nit ñi xam nañ waaye sénégalais moom la yàlla seen dangay ngay xool DJ rek mu def émission sax di rek nga commentaire sax saaga yàlla na ma yàlla baal. Mhm. te du la def dara. léeg nga xool nit ki sax neexu la nga ne nàngam noonu lay amee noonu lay amee loolu nag boo toppee ñu koy def ñaari ay mékontaan lañ. dëgg la te ñooñu ñoo topp waa ji Sonko ñi baax ñëpp ko bëgg man damaa xam man damaa xam fu am leer leer. Mhm. am na ñoo xam ne seen jë. boo dee dara yu mbir da xam la fa ne man xam naa leer de xam naa jullikatu guddi xam naa caaxaankat Sonko na ko réew mi gën a waggaraat donte waggar nañ ko ñu gën koo jàppaat ñu def ko suñ bëñ bi nga xam ne mooy ruk seen ba ñoŋati du ko yóbbu tey tabaski gi neex na dañoo toog rek ràcc nag waxtaan def lu ñu saf boo ko ak tey sëñ Mara ñëw ci. waaw waaw <laughs> dañuy di ko ñaanal jàmm nag. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man. Euh, man awma ci président Ousmane Sonko ak fay goo xam ne dama naan la lii laa ko mën a fay maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yoonam wii yàlla na yegg moo président Bassirou jommay fay ak képp kum ko àndal bu ma tuddee Sonko sax tudd naa ñëpp. lan moo tax ngay gërëm Sonko c'est parce que réew mi li nga doon ñaan yàlla ci réew mi. Euh, dama koy gërëm ci ni mu comprendre jeunes bi. dama koy gërëm ci dafa nekk nit ku reconnaissant damaa jàppoon sunkoo bàyyi naa ko ah man de dégguma ko kon jàppoo ko woon te nit ku xam nit dama koy gërëm ci am na loo xam ne làmmiñ du ko laal waaye am na loo xam ne manees na koo misaal mm-hmm. man Sonko ba ma koy gërëm ak di ko sant ak di ko ñaanal lu tey waaye tey ça fait location puisque effort bii ñu teg gouvernement bi di def rek man première war naa ko cee gërëm beneen bi ci topp mooy man Sonko dafa ma sagal barke alxuraanul karim man Sonko daf ma daf ma man Sonko bëgg Sonko neex boo koy wax nag ku xamut gaa yi mos leen ko. <laughs> bëgg Ousmane Sonko. Sonko boo ko bëggee sax yàlla dalay joxaatu taar dal bëgg Sonko. yàlla dalay jox ngay ami xéewal barke alxuraanu karim li ma wax dëgg la boo bëggee Sonko hmm. boo ñaawoon dangay rafet barke Serigne Saliou Mbacke li may wax ni am na boo bëggee Sonko hmm. boo nayoon da ngay tabe boo bëggee Sonko dangay nekk star boo bëggee Sonko sa xol day set boo bëggee Sonko ba man bi ma bëggagul Sonko melu moon ni Sonko dem yóbbu na ay xar. boo ko bëggee day ci xale ah, ba ci yenn kilifa yi kenn dàqu ko wax. ba ci xalif général des Tidiane sax jot na ak yeneen kilifa yoo xamante ne bii euh, mën naa am révélé wuñu seen ay xar. moom xam nga gars yi dañuy jëf di wax. Mhm. te Sonko moom yàgg naa joxe. ak tab la moo gën a tabe ñëpp. waaye léeg-léeg euh, Serigne Saliou dafa am lu ñu daan wax. man damaa fekk Serigne Saliou ñun mu ñu daan yóbbuloo ay dund. Mhm. ci dëkk yi nga xam ne dañoo waroon daaree xàbbaan sëñ Maxtaar si man na maa jël seere buñ masaana yóbbul paa yi dund ba dugal dund gi. Mhm. buñ génnee dañuy dàq saret bi ba ca àll ba taxawal fa saret bi doxaat ak suñu ay tànk jël ay morsa di di di effacer route pono yi pour dëkk bi buñ yeewoo xam ne kër gi am na lu fi dugg. ndeysaan loolu du sutura. wallaahi sutura la. président Ousmane Sonko dimbale na ku jàpp jàppale na ku ne balaa mooy accéder sax ci nguur gi te kenn yëgu ko kenn xamu ko. ah bon ah Sonko xam nga ne yàgg naa xaram may may ay xari tabaski nga ñëw ma ci xalifa général de Tivaouane nga ñëw nga ma tuddal léegi. Mhm. xam nga ne Sonko yàgg naa maye ay xari tabaski. daaw bi affaire yi gën a jax gën a metti nit andil na ko ay xar xam nga nu mu def. waaw détenu yi la ko yóbbul. Sonko gore man Sonko man man man man mais ku nekkoon ci situation yooyu. te nag man xam naa ñu taxawal ay gétt yoo xam ne ñu ngi may ay nit xar sax ci turu Ousmane Sonko xam naa ñu samp ay gétt moo tax Sonko la yàlla réew mi mënul def lu dul naat Sonko la yàlla may loolu nit taxawal ak géttu xar samp ko woo nit ne ko président Ousmane Sonko may na la xar te Sonko sax mën na koo bañ a yëg. moo tax danaa sos euh, kii boo xam ne euh, nu ma koy tuddee. kuréel wala mouvement. mouvement boo xam ne. cofeel laa koy tuddee. cofeel cofeel ñi bëgg président Ousmane Sonko danaa ko lancé te cofeel googu bu ma koy def moom lay invité te dina ñëw te danaa ci woo Sénégal yépp man maa koy sos. mouvement cofeel laa koy tuddee. donc yow seet nga ba sonkoo falu wax nga ba Sonko falu mais fas yéene woo bàyyi. du ma baax fas yéene cofeel gi danaa ko taxawal insha allahu rabbi di ci woo diaspora beeg ñëpp nag. adduna laa ciy woo. est ce que bu ma koy bu ma buñ koy inaugurer duma ko defee grand théâtre cofeel gi. def ko mouvement boo xam ne. Euh, képp ku am ci président Ousmane Sonko cofeel. ñu ngi ci 2000 lan élection yi di ñëw kañ lay am. élection yi di ñëw euh, je pense bien. jox ma chiffre bu baax de. ah 2025 lañ nekk de sëñ bi. ah 2024 lañ nekk. waaw. ah 2024 ah. 29 lañ jëm bala. 2000 <laughs> lan lay élection di amaat loolu moom ça dépend de 5 ans. moo ci def non 5 ans yi ñaataat la. 29 <laughs> 2029. cofeel 2029. waaw. Ah. mouvement bi noonu laa koy tuddee. cofeel 2029. waaw ok. <laughs> loolu danaa ci wax ak ñi ma ci war a waxal ñëpp sëñ maa laa koy taxawal ak i kilifa nag ànd kook ñoom cofeel gi ma Sénégal na leen Sonko mi ngi taxaw naan leen mënu ñii mënuñ soo Sonko ñii man sax maa leen dàq politique <laughs> waaw am na lu ne na ko xam moo tax tey waxtaan wi du gudd ndax jot amul mm-hmm. te idée yi bari na mm-hmm. euh, kontaan na te kontaan naa ndax bu may wax ci président Ousmane Sonko. sa xol day sedd. waaw booy wax ci moom sam xel day tijjeeku. dëgg la barke alxuraan say idée day yokk li may wax nii nag ku gàttub xam-xam doo ko xam mas ngaa gis nit ku ne la damaa saaga Sonko ba tedd continuer tedd Sonko ñi ko saaga woon ñëpp torox nañ dëgg la de. waaye damaa wax ci lu baax président Ousmane Sonko ba torox. doo ko gis. dëgg la <laughs> pourtant remarque boobu mën nañ ko def moo ah moo ah, am damaa saaga Sonko ba tedd maa ngi nii continuer tedd ku ko saaga woon tey yaa ngi nëbbatu ñu dox ci mbedd yaa ngi dox di làqatu yaa ngi xat doo audio doo woote ku la woo doo jël ku ko doon waxal lu baax tey yaa ngi yaa ngi sant yàlla te kenn deful la dara moom sax ma nal ko moom deful la dara mais ku yàlla def noonu la ci jamono ju ne ak luy am. mais sëñ bi maa doon. nga xam ne sëñ Mara tey mu ñëw ak tàngoor sëñ Mara tey mu ñëw ak beneen anam euh, ñu ma koy baal nag ñoom ndax buñ ma ko baaluloon danaa ko yëg.